donc bin bi nekk na lu xamante ne dafa am ñetti vertu muy benn ñaareel bi dafa nekk lu xamante ne yemul rek ci Sénégal fu mu juddoo euh, nekk na lu xamante ne biy dëkk di Mali di Nigéria di Ghana ak Côte d'Ivoire ñoom duñ ko def tamit seen euh, tradition duñu koy tàmmal solo euh, seen doom ak ñoom seen bopp duñ koy yàgg di utiliser donc bin bin ay fer nekkul rek lu Sénégal moom mais Sénégal def ci am particularité parce que Sénégal moo gën a fësal côté séduction loolu am na mais yeneen baax-baax yi nekk ci fer yi bu ñuy nekkee tamit ci euh, protection fer dafa nekk lu xamante ne dafay aar day aar euh, femme bu koy takk ci làmmiñ ak cati ak yenn xeetu liggéey yi koy def ci fer bi lay dal mu toj moo tax fer buy toj dafa baax suñu génnee ci loolu tamit fer amaat na yeneen vertu côté euh, santé lan lay def ci côté santé soo leen seetee suñu doom su juddoo rek ñun koy takkal fer ndaxte suñ ko ko takkalee dafay travailler au niveau de sa taille. Mhm. day affiner diggam bu baax. mais en plus de ça dafa am tamit lu muy faj su fekkente ne xale bi dafa am euh, poussée des dents. Mhm. c'est l'occasion vraiment pour que. ñi dimbali xale bi mu bañ am ay douleur su bañi di génnee donc euh, duñ ko koy nasal ay fer ay perle ñi ñi mocc ko ñu takkal ko xale bi su ko defee nag euh, suñ ko ko takkalee day tax xale bi du am euh, problème de denture euh, dentition suy génn donc soo leen xoolee mu nekk lu xamante ne dafa baax duñ koy teel tàmmal doom mu koy tàmm tàmm boobu depuis l'enfance di ko sol mooy dem ba defar diggam bu baax a baax tamit léegi nag ñu ñëw ci yeneen aspect yi xamante ne moom lu ñu ko bëggee tamit séduction lan la bin bin di jouer comme rôle ci biir séduction comme nu ko moomoo téye bii bu sew bi la ñu koy wooyee may saf na la de bi nu mu tudd waaw cristal bi bu sew bi la voilà fer dafa am bu sew wallaay loolu laa bëggoon nañ wax tur bi eh. gis na donc euh, cristal yi sew yi moom la ñuy wooyee bin bin fer yi sew yi la mm. donc fer yi sew yi daneen am ñaari catégorie comme mii moomoo yu mu téye ak yi nga xamante ne dafay ànd ak chaînette donc duñ koy diversifier di ci def ay modèles yi rafet pour la beauté des yeux mm. mais fer à la base buñ koy defar du woon beauté des yeux duñ ko defaroon pour effet sonore am dans le cadre de la séduction mooy karaj gi ñetti propriété la am ci effet de la séduction dafa am euh, effet sonore bu muy def ci nopp boobu Euh, soo koy dégg dafay yee sa sa cër yi quelque day yee bu baax say cër moo tax ñuy wax ne dafa am euh, vertu aphrodisiaque euh, beneen effet bi mu am tamit moo doon da doon leeral néeg bi parce que am na ay peru peme yi xamante ne ñu ngi koy woy lumineuse yeneen yeneen nekk ay peme yi cristal yi xamante ne soo fayee lampe yi dafay leeral toute la pièce donc mu serviroon également de repère ah soo gisee nekk lii di takk mu yaa koy takk daf lay may assurance. xam nga kaay ma wax xam nga lu neex ci lumineuse. lan bu lampe yi fayee. day tàkk ba lumineuse bi mu tàkk ko. waaw doo doo dee koy séen di nga xam yow fi nga jëm. nooy réeré yow di nga xam objectif bi. mais kaay ma la ne kaay ma wax yow bu la bëggee réeré na koo jël man nag dama bëgg mbay. waaw dama bëgg koo xam ne moom da lay dawloo tamit ci néeg bi. loolu dóor daaxee. dóor daaxee dóor ci biir néeg maanaam yow boo demee ba koy jéem a jekku rek. mu daaw mais xam nga dóor daaxee yooyu lan moo lan moo ci soof. mooy xam nga moo tax ngay feeñ karakkat ji foo toll da koy dégg. moom fi mu ne bu laax boo doon dégg signalisation la. karek. signalisation mooy ban kira bii bi mooy modèle string. ah bii waaw modèle string bu ñuy wax toj xaw ma toj. toj waaw toj dijj bi la ay peme yi dijj dijj la mooy yu ñuy utiliser. loolu moom pour ñi am jëkkër la. donc peme bu dijj ah, boobu. pain pain euh, euh, bu dijj boobu c'était pour muy def bruit. Mhm. ndax bruit boobu dafay créer ambiance. Mhm. dafay mayaat doole. Mhm. Euh, ku góor ki mais yow en tant que femme tamit daf lay may assurance. day travailler sa féminité. donc loolu yow dafa nekk ay xeetu baax baax yi xamante ne il faut que comprendre. ko ci xeer baax nga na ñëw bu baax. bii dee mooy peme. waaye dijj yi. waaw day toj am na ñu bëgg a dijj la. tur la bu ñu doon jox simplement euh, euh, fer. mais nag Kira ñu koy wax. Euh, dinaa la wax leen. gis nga fer fer li koy may valeur dëgg dëgg waaw mooy sër. mais waaw xoolal kii ni mu takkee sër kan la ma xool. waaw soo leen xoolee soo ko tegee ci kaw tubéy hmm? euh, du génn charme mais soo ko tegee ci kaw sër day génn charme mais buy gën a mayee charme sër mooy per bu dijj bi per bu sew bi c'est vraiment fait sooy sol euh, ay robe ay jean mais li gën a neex tamit mooy euh, fer dafa nekk un hmm. produit bu xamante ne kenn amul droit teg ci loxo ku dul sa borom kër hmm. ak yow sa bopp donc c'était propriété privée la E jigéen da doon tiitaroo da koy defar bu mu baax di ko xeeñal da ci def lu nekk di def effet sonore rien que pour attirer attention nit mais aussi pour wane fii moom ku ku ci bëgg am accès moom kenn rek la mu nekk mooy sama borom kër donc rien ko loolu bëgg ko jege bëgg ko laal da doon motiver góor mu def tout ba mun la conquérir mun la nekk sa borom kër mais léegi léegi dañu bàyyi loolu mm-hmm. te il faut ñu delluwaat xam ne góor euh, lu koy attirer mm-hmm. mooy ñàkk gis mais muy soupçonné di am yaakaar ni dana fa fekk lu extraordinaire. loolu day mm-hmm. sawar logo pour mu ñëw Kira des fois est-ce que du doon tooñ. comme mm-hmm. bu nekkee sa borom kër rek ko a laal. Mm-hmm. nga fekk comme par exemple benn group bu toog. boo xam ne ay góor rek a fa nekk lu mat dix fer. ak ay ak bruit yu fer ni mu mel. nga fekk ay góor yu sensible toog nga romb leen dóor ay karaj karaj karaj kaj. loolu est-ce que ça peut pas créer des des des problèmes. ça crée des problèmes dans le seul but de parmi ces groupes de garçons. kan mooy am courage. jug ne kii il faut ma conquérir ko la femme daf ko def ah, exprès. ndax code la code la code la bu xamante ne góor bu ci gën a am yéeg-yéeg ci bruit boobu ah. kooku elle il va tout faire ba mhm. jéem a nekk sa sa sa jaw nga sa daf am ay ay ay ay fer yoo xamante ni bien commun la de hmm, maanaam ah. cest à bien commun maanaam ñi ko boole bokk dafa bari hmm, alalu mbooloo waaw ah. alalu mbooloo waaw daf ci am ay fer yoo xam ay bien commun lañ waaw am na ay fer yoo xamante ne beauté des la mooy ni ko xale jigéen di def bi du benn nit quoi pour ñëpp la pour ñu bari a fait parce que dafa romb mhm. mhm. am espoir loolu dana ci nekk code pour kenn ñëw courtiser ko. Mhm. su kenn courtiser wulee mu demati feneen defati ko encore. donc euh, jigéen dafa bëri façon dafa bëri femme ay façon vraiment pour jéem a conquis accepter. wala xaaji yoon bi pour may góor daal mu conquérir ko. donc fer bokk na ci jigéen dafay yokk charme bu tubaab bi tubaab bi da ngay gis léegi. loolu moo tax suñuy dem plage ne gis ñu takk bu sew si seen digg teg seen kaw maillot de bain c'est seen jiin néegi gis bi di feeñ loolu def moo tax ma leen dafa ñëw ci côté visuel bi mhm. charme des yeux mhm. donc faire dafa évoluer dafa nekkoon lu ñuy làq après ñu dem ba di ko wone mais du lépp la ñuy wone soo xoolee bu sew bi kese la wone mhm. mais bu dijj bi ça reste toujours benn kump bu xamante ne ki nay bokkal néeg ak sa boroom kër kese moo koy gis te ci ay njariñam euh, moom fer moom fer ci ay njariñam en général li daal la ah bii bu doore bi la. mooy bi nekk nga gis nga bii moomoo boo ko booleeg lampe bu xaw a kii bu xaw a xonk nii. Hmm. day am dara. man bii nii lampe bu la lay àndal. Ah, bi ma yor nii lampe bu la lay àndal yow bi nga yor lampe xonk mais gis nga ay ferlaax da ciy baax moomoo. Hmm. maanaam en dañ koy takkal ay liir xam nga loolu ba effet bi pour lan la est-ce que. mais dagg ndigg pour dagg. pour xale bi am dagg bu rafet bu màggee loolu laa wax ci sama présentation. ah bon jël nag. t'as t'as tu euh, wax mais j'ai tout dit t'as vu j'ai da ngay gis day defoon digg day dimbali également pour dentition xale bi. moom laa leen wax dafay protéger ba pare dafay dafay intervenir aussi pour votre santé. Mhm. protéger bi mooy cat làmmiñ liggéey daf koy toj moo taxoon ñu ci doon taamu bu weex tàll bi ak euh, suppu kànj bi. mooy péribériculaire. mais Kira est-ce que am na saa ci ciy sànni pettaaw ci bi parce que fer duñ koy mocc tamit. Mhm. nekkul rek lu ñuy parfumer duñ mais duñ koy mocc parce que mhm. dañuy bëgg ay vertus sa santé. Mhm. merci mais Kira voilà. amoon naa laaj de. Ah, damaa bëggoon damaa waxtaan ci tur yi turu fer yi. turu parce que des fois nga dugg ci magasin yi gis ay tur yu doy waar waay. waaw tur yi dañ ko créer pour euh, motiver d'abord. ñu koy ay damm ay toj. waaw ay ay ay teggi teg fee. caabi. ay ay lu nekk ay tur yu doy waar. effectivement tur yooyu duñ ko génnee pour euh, attirer la attention des femmes pour ñu am envie jënd ko. Mhm. et li ñuy wax ne rek loo jox tur baptiser ko. Mhm. day créer benn ambiance. Mhm. daf jox gëddëm. donc euh, ñiy defar euh, fer ak sër il faut tout ak cuuraay dañuy def tout pour di joxe ay tur yi xamante ne dafay topp tendance pour rek mu jox ko pëncham mu motiver ñi bëri ñu jënd. kii kii xam nga ñu def. xam nga Biggi. xaaral ma woo Biggi nag. sama xarit bi. ngay communiquer. bon wàllu yi moom. xam-xam xaw na cee bëri tuuti. mooy wàllu fer. moom dafa màcc ci ay fer de ci seen xam-xam màcc bëri na de. bu nekkee ci kër gi sax moom mu ñëwaale. dëgg. dëgg xam mën naa ne de. wax feru lawbe yi tamit. lawbe yi ñoom dañuy nekkoon des femmes yi xamante ne son sont audacieuses sans gêne dañu ñemee vraiment di développer. Mm. dafa mel ne ne docteur duñu lay attribuer côté boobu na na xarañ ci bu baax a baax donc lawbe yi dans notre société ñoo doon euh, classe sociale bu xamante ne woon duñu leen attribuer woon ñi ñi ñi ubbeeku dugg ci lépp xam lépp curieuse. donc yenn xeetu baax xamante ne day jëm ci intimité couple ñoom duñ ci doon taxaw bu baax a baax du ci fer tamit duñ ci doon taxaw parce que fer lu bëri na ci mën am. Mm-hmm. donc ñoom duñ ci doon euh, yeewu bu baax a baax. donc soo bëggee yenn yi dañ doon dem ci ñoom. Euh, dañuy gis fer yu gën a di. bay foo nii sax. bi ma yor la en tout cas ma kii maa ngi doon ci fer yi gën a di ji. sax ay fer yi xamante ne euh, en terre la duñ koy duñ koy defar pat boobu. après di ko nas comme la Hmm. ay boule après di ko def ay fer. allo Biggi. Kira baal ma nga Biggi de. ci loo ne. maa ngi sant bu baax alhamdulilah. xam nga yow ku ne xam na ni yaa ngi seen TV yéen a dend moom. dëgg la trois pas nga yegg si. dëgg la dëgg la te vraiment vraiment vraiment on tenait à ce que tu tu tu viennes tu tu viennes tu viennes ici quoi. coupé l'accident. est-ce que yow ah waaw. tey lépp la gis tey lépp la gis. tey lépp la gis moo tax mu ñëw. nga ne yow foo jëlee bi nga. torop. dafa mel ni dafa neex nga mel ni sa jaw jaw aago boobu micro boobu. dafa mel ni dafa neex nga mel jooy. kii dama bëggoon laaj kii rek ñu may dégg wala. waxal. lii baax na ci jànk bu góor wala. jànk bu góor. jànk bu góor. jànk bu góor warul utiliser yii. jànk bu góor. comme man bu ma.